nit ki lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk lu tuuti li nga xam ne yor na ko bu gan ñëwee day préfère jël lépp jox gan bi bu dee dafa yor lal matelas matelas bi day préfère jox ko gan bi moom mu tëdd ci suuf donc nga gis ne euh, sénégalais donc en l'occurrence nit ku ñuul nekk nañu xeet boo xam ne wax dëgg yàlla yàlla daf ñoo dafa def yërmande yërmande ci suñu xol waaw ndax li nga xam ne yëpp tubaab bi teg nañu ko ci nattu dans le passe ak tey jàppewuñ leen ko sax pratiquement ndax ñu ngi ñëw Sénégal ñu ngi ñëw Afrique xam nga ndax ñun xam nañ ne système boobu noonu nekkul ne ñoom le peuple ñoom ñoo koy def waaye ñenn ci seen njiit yi ñoom ñoo nekk di imposer système boobu ñun nag on a su la part des choses ba nga xam ne ñoom bu ñëwee ci suñu dëkk yi moo xam di vacances moo xam lu mu mënta doon. duñ leen ko xoole duñ leen ko won duñ leen buntu xatal donc loolu mu nekk loo xam ne macha allah yàlla daf ko defal nit ku ñuul moo tax ma ne Sénégal bu le président Macky Sall xoolaatoon suñu histoire tuuti rek dina am yére de ci peuple bi ci population bi ndax euh, sonn nañu vraiment population bi sonn nañu euh, nañ leen jàppale waaw tey loolu du waxtaan bi damay damay waxtaan ak yéen nii rek. mais nekkul loolu mooy thème bi tey voilà mais dañuy waxtaan rek le temps que gars yi di ñëw pour ñu xam ñun ban chance la ñu am ñun ban chance lañu am am dëkk mel ni Sénégal dëkk boo xam ne nit ñi dañoo bëgg jàmm dëkk boo xam ne xale dafa jox cër respe mag donc dëkk boobu boo ko amee dañ koy fonk waaye dëkk boo xam ne tamit yàlla defal nañu lépp yàlla bàyyiwuñu seetaanuñu am na dëkk yoo xam ne amuñu géej am na dëkk yoo xam ne fitna bi bari na fa waaye Sénégal yàlla dafa def mu nekk dëkk boo xam ne macha allah am na géej am na naaj am na suuf am na àll am na garab vraiment Sénégal am na lépp li ñu manqué kay malheureusement mooy ay njiitu baax ay njiitu gëm seen bopp ay njiitu am yërmande ci askan bi ay njiitu gëm Sénégalais yi loolu rek fu mu ne ni moo ñu manqué. malheureusement waaye jàpp naa ne xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex xeex bi nga xam ne jeunesse ba nga koy xeex xeex boobu incha allahu day yàgg rek waaye ndam dina ci am ndam dina ci am ndax Sénégal dafa nekk benn exception man yàgg naa ko wax mais ne Sénégal exception la exception boobu nag dinaa ko développer léegi léegi nii dinaa ko développer léegi ak yéen pour que ñenn ñi bañ a daanu ci benn piège bi voilà tey ne dama bëggoon waxtaanee ñaari mbir. benn mbir mi moom mooy euh, Aliou saw Aliou Dembourou saw nekk député à l'Assemblée nationale parlementaire di représenté les Sénégalais ci hémicycle bi donc Aliou Dembourou saw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko nekk na kàddu yoo xam ne am na yenn analyste yu naan kàddu yooyu mën na taal réew mi di leen wax ne Sénégal Aliou Dembourou Sow dafa tuuti pour taal ko Sénégal dafa am ci ay base yu mu toog ay base yu solide waaye li mu wax gravité bi gravité bi garaaw na garaaw boo xam ne bu ko Macky Sall sanctionné wul bu Macky Sall sanctionné wul Aliou Dembourou Sow dina nekk lu yéeme dina nekk lu garaaw dama leen di wax lu tax ndax kàddu yi nga xam ne wax na ko man dama am chance ba man dama am chance ba man dama dama màgg ak ay xalpulaar man dama màggandoog ay xalpulaar man dama dem sax ba dégg pulaar man pulaar loo ci wax pratiquement à soixante pour cent dégg naa ko ma xam leen ñoom ñooy ñan te xam ne kàddu yi nga xam ne Aliou Sow yëkkati na ko moom rek la concerné ndax man dama xam ay pulaar yoo xam ne ànduñu sax ak Macky Sall bëgguñu sax ngay wax turu Macky Sall seen wet kon kooku li mu wax moom rek la concerné concerné wul les Haalpulaar il faut que loolu mu leer waaye danger bi nga xam ne moo nekk ci kàddu Dembourou Sow yi danger la boo xam ne day agir quotidiennement ci suñuy action ñun société bi naka lay agiré ci suñu action ñun société bi mooy yow mi nga xam ne xëy na màgguloo ak xalpulaar yi xamoo leen bu baax yow kàddu yooyu noonu mën na nekk loo xam ne da nga koy téye sa subconscient maanaam affaire waasoo mbirum xeet moom mën na dugal loolu sa biir bopp ba yow sur le plan quotidien quotidiennement saa yoo amee problème ak kenn koo xam ne Haalpulaar la rek mais automatiquement sa xel day dem ci li nga xam ne moom la Dembourou sa waxoon et subitement sa action sa agissement day changer par rapport ak nit kooku da ngay agressif da ngay agressif te nit ki du xam yow lan moo tax nga agressif nit ki du xam lu tax nga agressif mais da ngay agressif parce que sa xel day dem ci Dembourou Sow nga ne ah ok d' accord Haalpulaar yi xaar dañu yaakaar ne ñoom moom nit ñi parce que waa ji wax yi wax ji mu wax garaaw na garaaw boo xam ne day dugg ci subconscient wu doomu aadama yi day dugg ci boppu sénégalais yi am na ñoo xam ne il ne savent pas la part des choses bu ko defee yow nga jàpp loolu sa biir bopp mu nekk sa biir xel sans même que yow nga prêter attention sans même nga def ci attention. waaye saa yoo amee problème ak koo xam ne pël la wala xaalpulaar la rek automatiquement loolu nga xam ne nekkoon na sa subconscient mooy agir bu ko defee yow tout d'un coup nga agressif parce que da ngay déplacer problème bi yóbbu ko ci problème mu waaso lii moo tax li mu wax mu dangereux léegi nag li ko mën a faj li mën a tax lii bañ a des ci conscience su nit ñi ci subconscient wu ni ñi mooy le président Macky Sall jël ci ay mesures yu ferme mooy le président Macky Sall sanctionné waa ji sanction bu metti génne ko assemblée nationale jébbal ko justice ñu àtte ko lu justice teg ci kawam mu nangu ko lii mooy mooy régler problème bi beneen bi ci topp beneen bi nga xam ne moo ci topp man damay wax ak la jeunesse sénégalaise quelle la part de responsabilité de la jeunesse sénégalaise xam ngeen état état day xool population bi état day xol peuple bi état day xol jeunesse bi di xol nan la ñuy réagir par rapport ak ñoom li ñuy def bu fekkee ne état bi mu ngi leen di xool. mu gis ne nous avons une jeunesse boo xam ne jeunesse bu jeunesse boo xam ne el ne même pas consciente des enjeux politiques jeunesse boo xam ne elle n'est même pas consciente des enjeux économiques mu gis benn jeunesse boo xam ne elle n'est même pas consciente des enjeux des enjeux géopolitiques bu ko defee état day am fit ak sañ-sañu di continuer di détourner li nga xam ne askan bee ko moom. loolu yëpp mu ngi dépendre ci comportement bi nga xam ne jeunesse bi am na ko ndax Sénégal mooy dëkk boo xam ne da ngay gis benn nit koo xam ne maanaam seen waa kër bu ñu añoon sax duñu reer mu nekk député mu sa waxuma la situation moom waaye moom ak seen waa kër yëpp mu changé seen situation waaye ñëpp toog di ko xool ñenn ñi di apprécier ñenn ñi di commentaire te xamu leen ne waa ji loolu mu jël di ko enrichir famille yéen yéen a ko moom voilà le problème donc man premier responsabilité bi dama naan c'est la jeunesse jeunesse mooy première partie d'opposition parce que dafa am loo xam ne il faut que sénégalais xam ko jeunesse bi yéen yéenee première partie d'opposition gis ngeen am na fu muy toll am na état fu muy toll affaire wu réew fu muy toll on ne parle plus de de Pastef wala de Rewmi wala de PS wala de PDS non non non premier première opposition état mooy jeunesse am mu war a nekk nag benn jeunesse boo xam ne day taxaw jàkkaarloog état xool di càmbar état xool état nan lay gérer li nga xam ne moom moo ko moom bu ko defee jeunesse bi mën a taxaw léeg-léeg wala dénoncer avec fermeté li nga xam ne ñu ngi ko yoree seen alal ndax gis nga Sénégal man dama naan julli boo pare sax tàllal sa loxo di ñaan yàlla dama naan yaa ngi tooñ yàlla yaa ngi koy tooñ ndax man duma la jox lépp ba pare nga toog tàllal ma say loxo amul sens amul sens yàlla jox nañu lépp yàlla daf ñoo jox lépp jox ñu géej jox ñu suuf jox ñu jeunesse jox ñu pétrole jox ñu gaz jox ñu euh, or waa léegi yàlla mi nga xam ne yéen a koy tàllal seen loxo di ko ñaan yéen te ngeen dem tàllal seen loxo Macky Sall est-ce que yàlla lañ jox suñu pétrole est-ce que yàlla lañ jox suñu gaz est que yàlla lañ dénk suñu suuf est-ce que yàlla ñu jox suñuy impôt loolu yëpp président Macky Sall lañ ko jox kon kay yéen bu ngeen demee bay solliciter yéen dem leen ngeen solliciter président Macky Sall ngeen ne ko sonn nañu amuñu liggéey te yow la ñu dénk suñu réew pour nga defar ko yow la ñu jox suñu réew pour nga créer ay conditions yi ñuy permettre ñu mën a liggéey naam réew secteur privé mooy porter lu gën a bari ci emploi secteur privé moo koy porter mais pour secteur privé mën a porter emploi yooyu il faut que état jël ay doomu réewam yu xarañ yoo xam ne ñoom ñu ngi góorgóorlu état jàppale leen ba ñooñu porté secteur privé bi créer emploi kon nga gis ne lépp rek responsabilité état la lépp responsabilité état kon nag bàyyi leen ñaan gu bari bi yàlla defal ma lii yàlla may ma lii yàlla maa ngi lay ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ni non yàlla jox nañu lépp demandez plutôt des comptes au président Macky Sall demandez de l'emploi au président Macky Sall bu ngeen fajoo moom la bu ngeen fajuwul moom la bu ngeen lekkul ba suur moom la kon moom moo war a jox jeunesse bi liggéey moo gën le président Macky Sall di ko politiquer dafa am loo xam ne ci njiitu réew war na laa jomb dama leen di wax le président Macky Sall grand texe gay maa ngi koy bu baax am na lu mu développé lu am solo. loo xam ne bëggoon naa ci ñëw ma gis ne développé na ko ma ne ah très bien Abdou maa ngi lay ziar euh, gis ngeen euh, Papis maa ngi lay ziar Papis gis ngeen bourse familiale yi ngeen di dégg mooy bourse familiale yooyu Macky Sall doon jox ay ménage ay famille jëm cinquante mille famille ba xaw ma ay soixante quinze mille wala trois cent mille famille loolu Macky Sall le président Macky Sall def ko pour dimbali. les familles mais loolu benn électorat la benn électorat boo xam ne moom da ko dul lijjantil boppam ci naka maanaam day jël par exemple ay famille famille bu nekk dina jàpp ne famille bu nekk dañ nekk peut-être ay ay sept huit personnes yooyu en général suñu famille en Afrique ay sept huit personnes bu ko defee vingt cinq mille francs yooyu muy muy jox euh, euh, mu leen di jox par mois chaque mois lu mu dee dee dee dana fa am ñaar wala ñetti nit yu ko voté ndax ñooñu mënuñoo gis ne président lii mu ñuy jox nii sunu alal la waaye dañ ñaan non dañ ñaan président Macky Sall mu ngi ñuy dimbali donc amuñu euh, prise de conscience boobu bu ko defee foofu mu mu am fa ñetti nit yoo xam nañ ko voté wala ñeenti wala juróom loolu bu ko defee ci deux cent mille familles wala quatre cent mille familles xam ngeen ñaata lay représenté ci en en terme de de de population. kooku day dem ba ay cinq cent mille sept cent mille wa ay huit cent mille ay nit yoo xam ne dañu koy votel parce que politique boobu le président Macky Sall yor non c'est une bête politique bu ñu nee le président Macky Sall c'est une bête politique effectivement daa xam ni muy politiquer moom kenn muy gouverner moo ko moo ko jaaxal mais ni muy politiquer da ko xam kon nag bu fekkee da ngeen nekk ci dëkk boo xam ne nit ñi xamuñu loolu yëpp dañ leen ni manipuler à longueur de journée mais ñoom xamuñu loolu. ñun li ñu mën mooy di leen yée li ñu mën mooy di artu li ñu mën mooy di conscientiser Cheikh Sané maa ngi lay ziar patriote Abdou Abdou maa ngi leen di donc ngeen gis ne sama gars ngeen gis ne bu fekkee yéen bu ngeen jógul la jeunesse bu fekkee ne jógu leen la jeunesse dugg ci biir quartier yi dugg ci biir kër yi dem ci grand place yi dem ci marché yi ngeen conscientiser nit ñi ngeen yee nit ñi parce que ñu ngi nelaw y a façon façons de se am na ay xeex yu gën a efficace mën ngeen dajaloo def benn marche xool taal ay pneu fii mais ngeen dem yee nit ñi moo gën a efficace loolu te ñoom loolu sax lañu gën a ragal parce que nit ñi ñoom bëgguñu nit ñi yeewu ñoom dañoo bëgg nit ñi kon ne di nelaw kon ngalla la jeunesse jóg leen ngeen dem yee sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nelaw pour que ñu xam ne jarul jël gaal di dugg ci géej gi demal ci Macky Sall moo gën a gaaw te te amul benn danger demal ci institution yi nga laaj si nga laaj liggéey nga ne président Macky Sall da ngaa sonn na la fayal sa formation na la utal liggéey ñi nga xam ne étudiants yi nga xam ne. dem ngeen ba amuñ leen sax fu ñu leen def fi ñu leen defoon sax ci université privée yi kenn fayu leen yéen aussi am ngeen seen mot à dire dafa am combat boo xam ne jeunesse moo koy porté parti politique du ko rek du ko porté ndax nee naa leen le combat de la bonne gouvernance le combat de la bonne gouvernance jeunesse moo koy porté peuple bee koy porté pas les partis politiques pas opposition bi mais c'est le peuple qui qui qui porte ce genre de te yàlla wax na ko yàlla nee na man du ma changer destin wu benn réew fii lekk ñoom ci seen bopp jóguñu pour changer seen destin bopp. nee na du ma destin wu benn réew fii lekk ñoom ci seen bopp jóguñu pour changer seen destin wu bopp kon ngeen xam ne yàlla noppi na waa léegi nag yéen du ngeen jóg. ñëpp woote nañu ñoom Guy Marius Sagna woote nañu activistes yi mouvement citoyen yi mais jeunesse bi dañuy toog ne yàcc ne yasar bu ñu nee football terrain yi fees dell bu ñu nee lamb navetaan stade yi fees dell yéen maanaam xamu leen seen priorité yéen fo caaxaan moo leen gënal ngeen jog pour seen avenir waaye man duma leen mere parce que dama naan da ngeen xamul moo tax. ndax bu ngeen xamoon du ngeen réagir noonu mais dafa jot nag ñu waxtaan ak yéen ngeen xam te ngalla bu ngeen yeewoo yee leen kii nelaw sénégalais boo gis am na ko nekk ci wetam di nelaw nit a ngi xoole ubbi ay bëtam di xoole fekk mu ngi nelaw ndax ñàkk a xam ñàkk a xam nelaw la donc mu nekk loo xam ne vraiment c'est très important ngeen bàyyi ci xel parce que situation bi mënu continuer noonu. Allez-y, j'arrive. Ouais, montez, j'arrive. Elle avait 34 D'accord, allez, allez j'arrive. Non, non, non, non, Allez-y à la maison, j'arrive. Voilà. donc euh, li may wax mooy ngeen jéggal ma jeunesse bi moom moo jëlul responsabilité am moo jëlul responsabilité am moo tax état bi tamit am fitu def lu muy def c'est très simple gis nga bu fekkoon ne jeunesse bi dafa déterminé wu ne ñu sonn nañu maintenant nous voulons dëkk bi nga xam ne euh, dénk nañ leen ko sunu sunu budget bi nga xam ne jox nañ leen ko sunu institution yi nga xam ne dénk nañ leen ko sunu port bi nga xam ne jox nañ leen ko état sunu aéroport bi nga xam ne jox nañ leen ko entreprise yi fekk di fay impôt jox leen ko léegi nag da ngeen ñuy rendre compte par la force ñu xam nan ngeen yoree sunu alal ndaw yi foog ngeen jox leen liggéey. parce que boo bëggee dimbali les sénégalais nekkul ay bourse familiale ngay def mais da ngay créer ay emploi pour ndaw ñi liggéey ndax ndaw ndaw ñi bu ñu liggéeyee dimbali seen bopp dimbali seen i waajur c'est ça la vérité c'est la vérité boo bëggee dimbali les sénégalais du ci ay bourse familiale mais da ngay créer ay emploi jox ñu liggéey mais effectivement Chérif mu ngi koy wax génération Snap génération Snap Babacar Ndong maa ngi lay ziar. donc ngeen gis ne yéen li leen gën a intéressé mooy fait divers fait divers yi nga xam ne mu ngi xew ci réseaux sociaux yi moo gën a yitteel jeunes yi mais est-ce que xam ngeen ne situation bi ngeen di dund est-ce que xam ngeen ne situation bi ngeen di dund seul responsable bi est-ce que xam ngeen ne si le président de la République depuis Senghor ba ba tey jii ñoom ñooy les seuls responsables ba situation bi ngeen dund est que xam ngeen loolu. est-ce que xam ngeen loolu maa ngi dégg keroog MNF may mën a nduur fay mais au Sénégal mais au Sénégal nous avons des journalistes yoo xam ne mais waxuma la corrompu non corrompu dafa tuuti man xaw ma journalistes yooyu nu ma leen mën a tuddee mais journalistes yoo xam ne est-ce que ñu ngi xalaat seen diggante ak seen borom est-ce que journalistes yooyu bu ñu tëddee nañ nelaw di wax naan nous devons respe ah xaw ma lan respect et considération à tous les chefs d'État yi nga xam ne jaar nañ fi mais Senghor Abdou Diouf ba Ablaye Wade mais ban considération ban respect tey li ñuy dund yëpp ñoom la situation bi bi di dund lépp lépp lépp lépp lépp lépp ñoom la ndax ku ci nekk ku ci nekk toog nga minimum dix ans Senghor ñaata at la toog Abdou Diouf ñaata at la toog. Abdoulaye Wade ñaata at la toog dëkk bi di gën a ndóol dëkk bi di gën a metti jeunesse bi di gën a jooy nga may wax ay waxu considération non dafa am ay journalistes yoo xam ne ñoom li leen intéressé mooy pouvoir bi na am benn estime ci ñoom maxtaan maa ngi lay ziar ñoom loolu moo leen intéressé pouvoir bi na am benn estime ci ñoom mais nekk luñ fi askan bi et c'est dommage parce que maa ngi koy wax maa ngi koy wax ma ne leen journalisme benn rempart la boo xam ne ñoom buñ leen euh, corrompre rek du baax parce que manipulation ci média lay jaar manipulation toujours ci média lay jaar kon bu ñu corrompre journaliste rek du baax sunu journaliste war nañoo yokk góorgóorlu liiraat seen code de déontologie nañu xoolaat seen code de déontologie ak seen charte te bàyyi par parloo bi ñu nekkee ak ñàkk wax dëgg yu ñu nekkee ak yenn question yi nga xam ne ñemewuñ ko posé nguur am na ci ay question yu bari yoo xam ne ñemewuñ ko posé nguur xaatuñu ko ndax bu ngay xoolee ci 31 décembre bi ci 31 décembre bi passé ki posé Macky Sall ndax day def troisième mandat ni mu ko posé question bi sax baaxul te lépp ñoo ko tey ndax man bu ma nekkoon ci kanamu Macky Sall di ko poser question dama naan ko président yow yaa waxoon ne boo defee mandat de cinq bi pare nga ci mën nañ la séntu fu ne ba mu des ci troisième mandat est-ce que yaa ngi confirmer propos yi nga waxoon est-ce que yaa ba léegi nii laa koy poser question bi nii laa koy poser question bi Barham ma ngi lay ziar. mais doo ko ne est-ce que da ngay def troisième mandat non non non waxoon na devant les sénégalais ne man bu ma defee mandat de cinq ans bi pare naa ci di ngeen ma dégg ci leen mu def troisième mandat donc am na noo koy poser question bi mais pas comme ça moo tax man la gis nga journaliste yooyu noonu ba ci ba ci question yi ñuy posé sax teguñu ko fenn teguñu ko fenn euh, mu nekk loo xam ne rek wax dëgg yàlla man naqaru naa ko kon di ñaan Sénégal rek. encore une fois sama gars yi encore une fois jeunesse bi nañ jël seen part de responsabilité ndax ñoom ñoo mën a defar réew mi te ñoom ñoo mën a tax président jël réew mi teg ko ci yoon. yéen ñi nga xam ne nekku leen fi woon di ñëw di ñëwaat rek une dernière fois ci waxu Aliou Sow bi député Aliou Sow dañ ma ci muy Aliou Dumburu kooku nee naa leen li mu wax garaaw na garaaw boo xam ne. président Macky Sall bu jëlul ay matuwaay ñu sanctionné ko day joué ci subconscient wu Sénégalais yi ndax nee naa leen man dama màgg ay xaal pulaar ba dama dem ba dama dégg sax presque pulaar ma xam leen ñu nekk ay nit yu baax te waa ji loolu muy wax noonu les les pulaar n'ont même pas besoin de sortir pour se justifier ndax ñun xamante nañ suñu biir Sénégal kooku mënu koo taal Sénégal ci ay base yu dëgër nañ toog ndax Sénégal mooy dëkk boo xam ne guerre ethnique mënu am Sénégal c'est impossible ndax dañoo am ay yoo xam ne bu ki ne Touba bu ne murit yi euh, bu leen joxee ndigal ñu jëfee ko ki ne Tiwaawoon waxi noppi ki ne Fuuta waxi noppi ki ne Kaolack waxi noppi ki ne ki ne partout partout partout dañoo am ay mag yoo xam ne seen kaddu seen kaddu moo gën a di sax kaddu président de la république bu koy sant yàlla moo tax Sénégal loolu mënu koo taal. waaye li gën a garaaw mooy loolu day agir tous les jours ci sénégalais yi seen nekkin ndax am na sénégalais yoo xam ne malheureusement day dugg seen subconscient léegi yow heure boo amee problème ak benn pël rek. sa xel day dem ci waa ji lu mu waxoon rek sa xol daal di tànk nga déplacer débat bi kon gis ngeen mu nekk loo xam ne c'est dangereux c'est très dangereux li muy def ci subconscient doomu adama kon nag di di di wax ne Macky Sall il a l'obligation de sanctionner ces gars-là ndax bu ko sanctionné wul mais séquelles yi séquelles yi day dangereux parce que li muy jur ci société bi baaxul parce que day am ay day am impact sur la vie quotidienne des Sénégalais ñi nga xam ne xamuñu day am impact sur leur vie waaw donc mbokk yi di leen sant di leen sant di leen gërëm di leen ziar xam naa di yamale fii live bi rek euh, waaw parce que rek xam nga rek xat-xatu àdduna waaye den jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci seen page bopp koñ jërëjëf merci beaucoup.